sant bu baax di gërëm président wu euh, assemblée bi monsieur le président maa ngi lay sant di la gërëm bu baax di sant ak di gërëm bu baax honorable député yi fi yëkkati kaddu ci seen ay ñaan ci seen ay laaj waaye tamit ci seen ay conseil ak ay recommandation ci li ñu taxawal ci euh, penc ndaw réew mi askan bi yépp am ay laaj yu am solo yu fi jib ma mën ko tënk ci ay poñ yu yi ma nara lim ba noppi leeral ko bi ci jiitu mooy wàllu électricité bi xam naa courant yitteel na ñëpp ndax dafa am solo moo xam courant bi jëm ci wàllu li ñuy fay te ñu le wax léegi ni factures yi dañu jàpp ni ni mu chéré xaw na metti tuuti ñu war ci indi ay tontu waaye tamit war leen ci xibaar xibaar bu bees boo xam ni mu ngi jógee ci président de la république Macky Sall war leen leeral tamit li jëm ci wàllu pétrole bi ak gaz bi fan lañ ci tollu ak lan lañ ciy xaar waaye ñetteelu poñ bi nga xamante ni tamit dina yitteel euh, askan bi yépp mooy fan lañ toll ci indi courant bi ci gox yi nga xamante ni jotuñu koo am li jëm ci wàllu courant bi dama leeral léegi ci nasaraan ni ni ñuy toggee courant bi téeméer dërëm bu ci dugg juróom-ñaar fukki dërëm yi dépendul ci ñun ndax juróom-ñaar fukki dërëm yi mi ngi aju ci li ñuy jëndee bitim réew muy euh, fuel bi ñuy dugal ci central bi pour mën a defar courant bi kon bu fekkente ni barilu pétrole bi te ñun suñu pétrole tàmbaleegul génn barilu pétrole bi dafa yokk ala kulli normalement courant bi dafa war a yokk fii ci Sénégal mais bu fekkente ni président jëlul décision ni léegi dinaa dimbali nit yi ci li ñuy consommer ci électricité benn partie bi ma jàppale leen ci ba ñu mën koo attan ci fay kon bu boobaa fi ñu toll nii électricité facture yi bu ñëwee wala woyofal bi kenn du ko mën a attan moo tax at mu jot lim ciy def ci xaalis dafay yegg ci wax nañ ministre de finances mën na ko confirmer léegi yegg na ci juróom ñaari téeméeri milliards ak juróom fukk muy sept cent cinquante milliards ren dinañ dem ba yegg ci li mu def ci secteur énergie bi juróom benn téeméeru milliards yoo xam ni daf koy jël di ko dugal ci secteur bi saa yoo indee juróom-ñetti dërëm fay ko ci sa biir facture jàppal ni juróom benn juróom-ñetti dërëm yoo def fukki dërëm ak ñaar président ñëw na dugalal la ko ci pour jàppale la ci fay courant bi wala li ngay dugal ci Woyofal donc bu bàyyi woon da ngay dem fay ñaar fukk waaye ñaar fukk yi boo defee juróom-ñett fukk ak ñaar yi moom mu indi la ko pour jàppale la pour que mu gën a ba pour mu bañ a métti si yow waaye dafa am foofu lu ma fi bëgg a leeral tuuti tamit baax na trop ñuy wax ni nit yi ñu ngi leen di dimbali ci subvention may leeral ni senelek tey mi ngi am ñaari million ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay clients million bi ak juróom benn fukk yi. ñoom dañu nekk ci li ñuy wax premier tranche seen doole bëriwul waaye li ñuy jël di ko utiliser ci courant tamit bëriwul ñu président daf ni lu pétrole yokk-yokk lu ñuy toggee courant lu mu yokk-yokk lu mbir yi cher cher ñooñu bu ñu teg dërëm ci li nga xam ne moom lañuy ñuy fayeeku leen jël ñu dimbali leen ba woyefal li ñu war a fay ba du ñu am dañ leen subventionné totalement amul lenn loo xamante ni ñoom bu pétrole yokkee wala leneen yokk dinañ ko ci yokkal dañ leen di bàyyi noonu mais ñi nekk ci ñaareelu tranche bi gën a am tuuti doole wala am nekk si ñetteelu tranche bi si poste paiement nga xam ni am nañ ay climatiseur am nañ ay congélateur mais bu la président fayalee fukk dërëm ak ñaar wax dëgg yàlla juróom-ñetti dërëm nga góor góor tuuti nga indi ko ndax li koy waral soo ko deful boo ko deful tey boo demee ci dëkku yi nekk ci biir dëkk bi ñu koy wax dëkku dëkku euh, àll wala dëkku kaw man ci laa bokk parce que xombul la cosaano alors léegi su fekkente ni da ñëw dëkk yi wër Xombol wala dëkk yi wër Tivaouane wala dëkk yi wër euh, nekk wër Ziguinchor wala ak fu mu mun munti nekk ci biir réew mi su fekkente ñooñu dañ fa bëgg a yóbbu fépp courant su fekkente ni xaalis bi yëpp alal bi yëpp dañ koy jël di ko fayee ay subvention ñooñu kañ la ñuy am courant donc il faut que waa Ndakaaru ak dëkku taax yi bu ñu amee courant ñi nekk ci dëkku àll bi amaguñu courant ñu sedd leen ba bu ñuy subvention subventionné tamit ñooñu mën a am courant alors loolu moo tax subvention bi naam ñi ngi koy continuer def mais président wax ni nañu baral ni ñu fexee ba courant bi yegg fépp ci dëkku àll yi moo tax bi muy ñëw moom fii ci boppu réew mi junni ak juróom benn téeméer ak juróom benn fukk la fekk ci ay dëkku yu nekk ci biir réew mi ñu koy wax les villages ñu amoon courant tey bu ñu ko xaymaa mu ngi ci juróom benn junni ak lu ëpp ñaari téeméer yoo xam ne indi na ko def na ko courant ci ay dëkk-dëkkat kon jëlee na courant bi ci mille six cent soixante village yóbbu ko ci six mille deux cent village ba tey nag dina am lu des parce que comme ni ñu koy waxee si olof ndar xëyul sotti ku la wax ni la ku la jëlee lee courant ci junni yóbbul la ko ci juróom benn junni bu la nee dinaa la ko yóbbul suba ci fukki junni mën nga ko gëm yoon bi nag ci loolu lañ nekk alors maintenant pétrole bi ak gaz bi bëri na léeg lu luñ ciy laaj te c'est normal bëri na lu ci sénégalais yi bëgg a xam c'est normal mais foofu dama bëgg tamit invité te tey seetlu naa ni waxuñu ci commission am na ñu ci waxoon tey waxuñu ci damay invité parce que loolu mooy suñu njariñ mooy njariñu Sénégal am na ay waxtaan ak ay question yoo xam ni di wax lu ci yàq baaxul ndax da ngay dàq ñi nga xamante ni ñoom ñoo am alal bëgg a ñëw bëggal si seen alal pour que ngeen séddoo su ma ko doon euh, misaal damay wax ni bay séddoo la pétrole bay séddoo la yow da ngay am sa tool mais amoo jiw amoo fas amoo machine amoo surga mais tool rek nga yor léegi nit jóge fële indi fasam indi machine am indi jiwam indi surgaam ba pare indi añam yow léegi nga toog di xaar doo def dara yow mi moom tool bi da ngay toog rek di xaar doo def dara moom mu bay ba mu ñor ngeen séddoo pétrole noonu lay fonctionner te ñi doon wax ci njëlbeen bi ni 10 pour cent lañ ci am xamuñu dara ci pétrole pétrole fonctionner wul noonu tey boo ko doon xayma ci wàllu natt jigéen yi bu ñu bokkee natt. dañuy wax ni Sénégal ñetti loxo la am ci pétrole ñetti loxo dafay am loxo bi nga xam ne Petrosen moo koy téyal loolu la ñuy wax 10 pour cent boo xam ni bu ñuy wër pétrole wala ñuy tàmbali liggéey Sénégal du joxe dara euh, le le ministre de finance kenn du ko laaj dërëm compagnie bi mooy ñëw lépp moo koy defal boppam mooy indi xaalis te bu ñu leen waxee xaalis bi compagnie yi di dugal benn forage cinquante milliards. mën na ci dem pour rek benn fo set ci benn forage ndax am na pétrole wala am na gaz te mën nga dem set doo ci gis dara wax nañ fii ni am na ci ay projet yu bëri da ngay dem sans forage nga dem def ko doo fa gis dara mais bu boobaa Sénégal du la jox dara yow yaay demal sa bopp mais boo gisee nag Sénégal ni la ah kay man am naa ci ñetti loxo ñetti loxo yi ma ci am mooy Petrosen daf ci am loo xam ni da nga ka kay jox 10 pour cent cent ñu tàmbali ci dara. bu dee cote deux mille dix neuf bi day dem ba vingt pour cent bu ñu duggee phase de production bu ñu bu dee non bu dee cote mille neuf cent quatre vingt dix bi bu ñu demee phase de production day dem ba vingt pour cent bu dee cote deux mille dix neuf bi day dem ba trente pour cent loolu Petrosen kese la bokkul ak loxowu état bi ci boppam directement bu ko Petrosen yoreel lépp loo génnee par bis dañ ko def ci benn tablo ni la boo génnee maanaam téeméeri bërigo pétrole fanweer yi ak juróom état bi nga xam ne moom moo moom tool bi moom da koy jël te moom indiwul dërëm amul dara lu mu joxe mais da koy jël fanweeri yeeg juróom moo ko moom da koy jël téye Petrosen ñëw jël wàllam léegi nag bokkul ak li nga xam ne nag ministre des finances moo koy jëlal boppam ci wàllu fiscalité donc état bi ñetti loxo la am ci pétrole beeg gaz bi kon bu ñu demee ba ci cëppaandaw bi téeméer boo génnee su fekkente ni yenn projet yi état bi da ciy am juróom fukk ak juróom bu dee yeneen projet bi day dem ba juróom benn fukk ak ñeent mais loolu nit yi bu ñu nekkee di wax pour joxe rek bloc yi damay joxe exemple bloc yi Sénégal dañ ko tas en fanweeri bloc ak ñaar muy 32 bloc fi mu ne 21 bloc yi joxuñu ko kenn ñaar fukk ak benn bloc yi nga xam ne dañ fa war wër pétrole ak gaz kenn yoru ko xam nga lu tax kenn yoru ko parce que nit ñi sa waratuñ ñëw li tax sawaratuñ ñëw bu ñu tàmbalee bëgg a joxe benn bloc wala yooyu sax ñu ne e eh, ñi ngi séddoo suñu pétrole bi wala ñu ngi sag suñu gaz bi alors que ñooñu il faut ñu ñëw bloc yi il faut ñu joxe ko il faut ñu joxe ko wër li nekk ci biir buñ ko amee séddoo parce que ñun tant que bi nekk Sangomar wala Yaakaar Teranga wala GTA pétrole bee gaz bi mënoon na tëdd foofu ay nangami million at du génn ci suuf si parce que Sénégal amul alal ju mu def foofu Sénégal tal na leneen lu dul dem di jël ay milliards. par exemple je donne l'exemple de GTA bi ñu bokk ak Mauritanie fii may waxeek ak yéen nii li ci BP defagul ci xaalis yegg na ci six virgule un milliard de dollars milliard de dollars laa wax waxuma CFA BP def na ci six virgule un milliard de dollars te Sénégal génneegul trëm bi gën a tuuti dugal ci mais kooku boo ko joxul mu dem wër ko génne ko ngeen séddoo mais pétrole bi ak gaz bi foofu lay tëdd kenn du ci jariñu mais donc les blocs qui sont là les vingt et un qui sont là il faut que nit ñëw jël ko en tout cas man ci ndigalu président képp ko xam ne am nga doole bëgg a wër boo ñëwee man d'accord naa avec d'ailleurs les commissions yi nga xam ne ñoo ñuy accompagner te député yi ñu ngi ci jox leen bloc yi ñu wër ko bu ñu gisee pétrole ak gaz suñu nattaangee mën gën a mën a yokk suñu xéewal gën a mën a yokk ma bàyyi suma collègue bi mu yeggale comme 30 minutes rek laa amoon jërëjëf. merci monsieur le ministre monsieur le ministre des vous avez la parole.